xibaar bu doy waar la maître Khoureychi Ba daal di nag xëyee ni ki tey askan wi di leen xamle nag état de santé bu Sumooku cas bi nga xamante ni jamono ji daanaka nag mi ngi si ay jafe-jafe yu dul jeex ca prison ga mu nekk nouvelle yoo xamante ni daanaka neexul dara ci ñi nga xam ñoom ñooy fans bu Sumooku cas yi de moom artiste rappeur bi nga xamante ni nag ma nga ca prison daanaka nag dañu ko jàppale woon ak ki nga xam ne mooy kilifa ci benn présumé affaire de trafic de visa euh, passeport euh, diplomatique si moo jamono ji ma nga ci prison waye nee ñu nag euh, jafé jafe wér yaram moko daldi nak sonal rappeur bi nak nee ñu état de santé mi ngi gën tagaté tagatémbe daanaka grièvement la daldi nak nag Mon mi bu ñu côté ci cardiologue bi Simon Kouka est gravement malade dafa fragile ba nopi itam mi ngi supporter difficilement milieu carcéral bi lé lolé la avocat mi daldi nak xamlé biñu biñ journal l'Observateur l'observateur def lu ñu euh, mel euh, bu ñu sukkandikoo nag ci état de santé bu Simon bi euh, nga xamante ni nag état de santé moo daal di nag nekk ci guuta jamono ji nag daanaka avocat mi daal di jël benn rapport déposé ko ci table juge en charge du dossier bi di espérer ben liberté provisoire wala boog benn évacuation ci benn milieu boo xamante ni nag milieu hospitalier lay doon foo xamante ni nag état de santé mën nañ ko daal di nag bu bu baax a baax ñu fàttali ne en 2017 moom Soumou Kouka ci lañu daal di waxoon ne nag dafa am feebar bii di accident vasculaire cérébral di AVC moo ko daal nag daloon daanaka sonal ko lool lool ba mu dem sax ñu évacuer ko ca bitim réew daanaka la fajoo sax laata moo dellu si waat fii ci diwaanu euh, Sénégal moom si en tout cas 2017 ba tey nag lay traîner ay séquelles yu AVC yoo xam ne bàyyeegu ko ndax mi ngi am ay traces euh, ci biir yaram bi yoo xam ne daf ci daal di nag des ba jamono ji li mu doon dem di dikk yëpp ak di amal li nga xamante ni euh, moom mooy ak ay ci wàllum société civile civile bi ba ci mouvement Y'en a marre lépp nag mi ngi woon ak feebar bi di AVC di ko traîner juste que nag daf ko doon euh, caché di ko camoufler nank nank moom Simon Kouka waaye mbir yi nag daanaka fu mu toll nii nag daal di xamle ne bu état bi gaawul jël nag li nga xamante ni moom mooy décision bu gaaw ngir ñu daal di koy évacuer soit ñu yóbbu ko ca pavillon spécial bu hôpital Le wala ca pavillon spécial bu hôpital euh, Fann Fann ngir daal di koy a jox ay soins yu war ci moom daanaka dinañ ko daal di tàggee suup ndax na cardiologue am bi nee na nag dem na ba mënatul daal di nag supporter li nga xamante ni nag moom moo ñeel nag wàllum nag milieu carcéral bi muy tëj biñ ko fa daal di tëj déjà condition yi réunir nekkuñu nag ci ab pavillon bu spécial foofee nag ca prison ba waaye nag itam nekkuñu itam ci ay milieu boo xamante ni nag am na lépp loo xamante ni nag daanaka bokk na ci ay commodité yoo xamante lañ ko daal di nag sukkandikoo moom euh, Simon Koka ak kilifa bu mouvement Y'en a ñi nga xam ne dañ leen tudd euh, ci euh, mbirum trafic présumé de passeport ak visa mi nga xamante nag ci lañ leen daal di jàppoon ginnaaw bi ñu démantelé benn vaste réseau bu ne mel ak nag ki nga xam ne mooy Thierno Amadou Diallo ma leen daal di nag dugal dugal seen tur yi ci boobu leen nag trafic daanaka fu mu toll nii ñu ngi xeex ak yoon ngir daal di nag eggale mbir ya fu mu daal di nag jëm jamono ji nag jàppale ni ki nga xamante ni nag moom mooy euh, Simon Kouka euh, mi ngi ci nag situation bu délicate boo xamante ni nag faaw état bi daal ci jël nag ay ndogal ak nag administration pénitentiaire xëy sax ñu mën ko daal ji nag euh, def ci ab zone boo xamante ni nag dina fa mën a nekk paisiblement ñu koy faj wala ñu évacuer ko génnee ko pour loolu nag liberté provisoire bi ñu daal di déposer ca table juge bi nag ba tey juge bi bugg cee àddu wala boobu daal ci indi nag benn